bokk yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonentam ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal dellu di ndokkeel jullit yépp ci weer wu tedd wi nu nekk yàlla nanu yàlla dimbale ba nu man koo joxe ni mu ko santaane te ñu fekke cat la suñu boroom nag mi nga wax ak ñun di ñu dénk rawati nag bis yu mel ni yi ñu nekk bu ñu demee ci alquran danañ ca fekk muy wax ne wa dhakkirhum bi ayaamillah inna fi dalika la ayatin li kulli sabarin shakur na ngeen leen di fàttali bis yi nga xam ne bisi suñu borooma bis yépp bisi suñu borooma waaye soo déggee ñuy waxtaanee ñamu daaw wa mën naa bañ doon ñam wa ca boppam waaye la àndoon ak ñam wa tax ñu nettali ñam wa ndax noog aw ñam ñoo dëkk waaye am na fu ñuy waxe ci alxuraan it aaya boobu ku ko dégg da nga ca dégg ku ko dégg da nga ca seetlu mu wax ba tudd baatub muñ waaye am na fu muy waxe ci alxuraan it naan li ñuy wax ne ku amul ay bokk ci mbedd lay dégge ma ngi cay joxañ ne ab jullit moom bu demee ba amutul mbokk mu ko dimbale na dem wéeru ci muñ ak jaamu yàlla wastainu bi sabri wasalaati waaye nag lu diis gann la muñ moom ak jaamu yàlla lu diis la wa innaha la kabiratun illa ala alxaashiin ñim woyof ci ñoom daal mooy ñi nga xam ne wóor na leen ne bis penc ngi ñëw te yàlla dana àtte ñooñu moom lu woyof toy lay doon ci ñoom waaye am na fu mu wax ak jullit yépp it ku ca génn moo ca génne boppam ne def leen seen wéeruwaay muy muñ ak jaamu yàlla ndax yàlla kat muñkat yi la àndal boo ko yëgee ak boo ko yëgul yaa ayuha alladina amanu stainu bi sabri walsalaati inna allaha maa alsaabiriin soo gisee mu tudd alsabr teg ca salaa muñ am na baat bu jàkkaarloog moom muy jom koo dégg ñoon daa am jom muñkat lay doon waaye safaan ba mooy safaan ba koo dégg ñoon diw ak a ñàkk jom bee boo nga xam ne munta muñ te julli googu mu tudd day yóbbaale bokkam yépp bokk yi ci aw xeet bu ñu xasee ba ne diw dañ koy tooñ foo taseeg mbokkam lu mu sori sori boo ko xamee da nga koy da tàmbalee bàyyi xel kon saa bu ne julli yépp la boole yóbbaale koor ci la bokk aji makka ci ku ko man ci la bokk fas yéene liggéey ba mën a génne asaka ci la bokk suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag bi mu koy leeral ci njàngaleem tudde na weeru koor wi ñu nekk weeru muñ fi muy waxe ne woor weeru muñ ak ñetti fan yu nekk ci aw weer moo xam ñetti fan yu jëkk ya wala ci digg ba nga ko tànn wala ci mujj nga ko tànn ci weer wu nekk nga woor ko ku ko saxal mel na ni woor nga sa dund gépp sawmu shahri sabr wa sawmu thalathati ayaamin min kulli shahr sawmu dahr waaye nee na it assawmu nisfu sabr koor moom ku ko fekke woor ko ne la wóor ne bu ñuy lim muñkat ya def seen darajay muñ ya fukki tomb am nga ca juróom juróom ya ca des fëxal xëccoo ji ko ak ña ca des la ca ñeneen di am waaye nee na tam wa tuhuuru nisful iman foo toll taqoo ko laa bit bu ñu séddale gëm yàlla dëgg-dëgg bu dee fukki xaaj la yow am nga ca juróomi xaaj moo tax muñ mooy laytaayul jikko yu rafet yépp waaye muy jële nit it ci mboolem jikko joo xam ne sunu boroom gërëmu ko yàlla nañu ci yàlla musal bu ñu ko gënee jegeel it mooy koo xam ne moomoom bakkanam mooy tëj bakkanam ci lam gën a bëgg da ngay dégg ñoon diw dafa topp bakkanam musiba dal na ko waaye bakkan nit a ko war a moom fu ko soob yóbbu ko fa te loolu ab muñkat moo fa toog ku fa dem moom nga fay fekk lépp loo xam ne bakkanam bëgg na ko mu xañ ko ko waaye nag jublu ca sàkku ngërëmul sunu boroom rawati nag lu mel ni koor bokk yi koor du rey kenn diw daa woor ba dee musta am diw daa woor ba dee koor gaa ko rey musta am fenn am na ñoo xam ne ndeysaan wëri dinañ ci weeru koor jom joo xam ne muñ a ko law tax ñu ne leen am leen naan wala ngeen lekk ñu bañ a dog ba farfaat yal leen yàlla yaram moo tax kenn mënta topp yàlla nam ware te lëkkaayoowut lu ñuy wax muñ waaye kenn mënta bàyyi itam mooy yàlla te fekk lëkkaayoowut lu ñuy wax muñ bu dee mooy yàlla mooy wuuteeg bakkanam jëm ci lu baax bu dee topp yàlla mooy moytu mooy wuuteeg bakkanam fa mu koy jëme ci fu neex kese kese jëmale ko fa yàlla joxañ yal nañu ko yàlla dimbalee ci xadis bi ma jàng léegi danañ ca fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu tudde koor wooru weeru muñ li ko waral mooy li aju ci koor ci jaamu yàlla dara yombu ca ndax dugg ci sam néeg luy saral ne fa yu sedd nekk fa di ay ñam ak lu ñuy naan nga ubbi ko xool ko yow kenn nga nekk fa nga ubat ko tëj nee ba dem loolu bokk yi jom moo ko man te jom boo ko déggee mooy kuy jomb kuy jomb ak kuy rus bokkuñu kuy rus mooy koo xam ne daa am kuy tax mu def ak kuy tee mu def rek waaye kuy jomb wéet ak wéet li ko la yamale te loolu muñ nag moo fa yóbbu nit moo tax kii toog ci ànd bi ñuy wax muñ day muñ ba muñaale sax dogal yi nga xam ne nit ñi dañ ciy jàmbat waaye su boobaa moom day fab muñ def ko laytaay fab jom toog ca fu mu jëm mu yóbbu ko fa ku ne xam na ni weeru koor koor a ci gën a fés muy bàyyi lekk ak naan li ko tàmbalee fi naan bàyyi jot na ba fi naan dog jot na waaye day yóbbaale mbooleem cër yépp ci xool ci dégg ci wax ci laal ak ci xeñtu xet ak dox ci ay tànk jëm fi barab wala laal ci ay loxo moo tax buñ ci tuddee ay wax alxu njàngam alxuraan a nga ca waaye buñ dee buñ ci tuddee ay tànk ak yoxo it def lu baax a nga ca ak dox jëm ci lu baax kon koor ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudde moom moo ko dégg moo ko gën a dégg ñépp mi ko tuddee weeru muñ ak yu bari yu aju ci weeru koor bi te fekk muñ moo ca jotale nit ki yàlla na nu ci yàlla boole bokk na ci nag yi gën a fés junj naa ko léegi ci lu tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ne weeru koor weeru muñ la ba ci jiitu mooy muñ xiif ak mar te yàlla rek tax waaye am na ñooñ nag seen muñ xiif ak mar xaw naa dang daay am na ci ñooñ danañ woor jàmbaar lañu waaye nag xiif ak mar googu duñ ko yëg la ko waral mooy gannaaw fajar lañuy tëdd bala ñoo yeewu tuuti des ci jant bi ñooñu nag tëxul ñu naan man lam yada qawla zuuri wal amala bihi fa laysa lillah lillahi hajatun fi ajada fi an yada taamahu wa sharaba bàyyi lekk ak naan la tax mu di ko wax mooy boole koog di liggéey boole koog di liggéey waaye bàyyi lekk ak naan ne waat wattaaral yendoo nelaw ba jant bi so mu jóg dog ni nit ñi lu néew la woor koor gam def moom mooy koor gi bàyyi muy def rek bu ñu suuree bàyyi ma fu mu foree ba suur bala naaj bi tànk day tëdd reesal ko ci ay nelaw waaye bokk yi koo xam ne bu ndogu jotee ndogu yi dañ koy wër ci wet gu nekk fa ndogu la àgg loxoom jotu ko danaan jot li ma lee topp ko ba ci li may bëgg ñëw ci kanam tuuti tam am solo lool du tala dem fa jullit ya di naafila donte naafile la tudd waaye am nañu naafile ga moo leen di soññ su dul naafile ga duñ def benn rakka ci guddi weeru koor waaye ne ca ndogu ya bu mbëstan ñëwee mu mbëstan bu xaddu jotee mu dàq ko ñépp daal di fatu nag kooku xiif ak marga lay la ñuy wax ne yàlla amu ca soxla donte ndax puusut paasut ñu ko gone yi di waxee waaye nag ñi yëg xiif ak mar ba tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla nee na maa tax ñu bàyyi seen lekk ak seenu naan mooy jàmbaar yi nga xam ne daanaka ci naaju la ñuy xaw a yandu bu la soobee mën ngaa tudd am maçon wala ñee bokk ak moom la muy liggéeyee wala ñi nga xam ne bokk yi boo leen xoolee sa yaram bi day daw danga naan man lu ma defal yàlla ba melu mën a kee koo xam ne la muy yanu ci la yaakaar lu muy ndogoo ji boole ko ko topp naaj bi di wër fu mu dem ne ndax am ngeen lu ngeen def lu ñu ne waaw wala déet su dul déet mu jàll ñooñu moo tax yàlla di wax ne ñoo tax yàlla di wax ne ñoom dañoo bàyyi seen lekk ak seen naan ngir man am na ci ñoo xam ne yàlla xam na ne bu ngoon jotee mën nañoo bañ am lu ñu doogoo te du tee ñu waraat bu subaa moo tax nit ki war nay xool bu baax a baax a baax loolu su ma tuddee ñi ne ci naaj bi ci noonu ku yor ak jur di ko sàmm mën na caa bokk boole ko koram wala koor goo xam dafa tase rek jamonoy tool yi nit ñi di liggéey wala koo xam ne daa yanu la muy yanu di ko jaay te fekk du ci gëm mooy ab tànkam ñooñu nag nit ñi duñu leen bàyyi xel nga xam ne moom mooy jëkk a yeewu jant bi balaa jant bee fenk mu xëy te ñaare bala moo dellu fa mu fa mu dëkk jant bi lang lool nga xam ne day dàkk rek waxtu woo xam ne bu ca àggee fekk jot dog jot mën na ko fa fekk mën na ko fa bañ a fekk ñooñu nag ñu mat a geesu lañu ndax fii réew mi la fi xew mooy dañuy dolli koo xam ne daa amab jal ba noppi wala ñu yàkkal koo xam ne moo la dàqalee fuuf lu mu toog loolu amutug pay mën naa amutut waaye du amuk pay moo tax suñu borom di wax ci alquran ci xadis xursi ne ñoo ñu ma tudd ak ñi ma tudd teñ bokk lu ñuy def nga xam ne nelawuñ bëccëgu weeru koor wi kese waaye dañ ko doon liggéey mooy ñi nga xam ne nee na dañoo bàyyi seen bànneex yépp ak lekk ak naan te jëm yàlla ja tax bu loolu weesoo ba nga xam ne dog jot na ba ñëpp dogandoo yëg nga leen wala yëgoo leen am na julli yu ñuy def ci jumaa yi tudde ko naafila am na ci ñoo xam ne bu ñuy seet muñ fu mu nekk bu ñu leen dikkee jot bay boo ñu wàññi ko ndax duñ ko gis bokk yi ku yàlla dimbali mu amug wér tal ko kenn wëru ko bëgg ko jàpp kenn jàpp ko nekkul ci yenn loxo yu lu loxo yàlla am na lu mu lekk ba ngoon jot mu lekk ba ab kollam fees ñu woote sa jàkka ja kaay leen julli fukki rakaa ak ñaar ak witr mu tëgg ko ticc naan naa dem fa mu gën a gaawe fa mu gën a gaawe wolof yi nee nañ cëf ka lu mu gaaw gaaw na ko yóbbi ab sëf gaaw na yóbbu na sëf ba moo ko gën a moo ko gën a wóor am na ñoo xam ne jàkka yi ñuy dem moo ñi taree nii may bëgg a wax baax na nag waaye lu baax fu mu am la gën da ko faa fekkul wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muslim faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wallahi aqbatul umur wa man kafara fala yuslim kufru illa majufan bima amilu inna alayhim bisat sudur nu matti xalis ma ila sabin xalis allahu akbar allahu akbar mel ni ganaar koy for ñépp nañ dàkki kooku ndax moo gën a gaawle waaye la ko kooko di xañ la muy baax baax du yam mukk ak ka ko defut day génn ci atte bi alquran di wax na wa ida quri alquranu fastamicu lahu wa ansitu laallakum turhamun al istimaa wal insaat munta amee ci noonu yi ndax am kaam dëgg dëgg dëgg moo ko mën a topp moo tax léeg-léeg mu wax ba yàgg mu taxaw delluwaat delluwaat gannaaw te ñi koy dégg du ñu xam fu mu toll am nañu nag foofu la ñuy dàkk kooka la muy gaaw gaaw du tax ñu jullee ak moom fukki dàkk ak ñaari ak ak witr ba waaye dañuy bàyyi ba mu xaajal ñoo ndax xaaj na ñu ne waaw ñu ne xaaral ma jóg boog jéem a àggale am na ñoo xam ne dañuy bàyyi ba mu des benn rakaa boo xam ne su ko àggee sa fag witr moo ci topp ñu dem nekkuñu kenn seen bopp la ñuy daw moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de xeemem loona jullit yi lool ñuy dem ci jàkka yi doonte yonent yi bàyyiwu foon loola waaye dem ci jàkka yi la wax lu ilimaan yàgg-yàgg nga xaar ko digée na ca lu bari nee na man qaama maa alimaami xata yansarifa kutiba lahu qiyaamu layla kam topp si gannaawam lu julli ga yeex-yeex su ko xaaree nag ba mu àgg da cay duggaale bu mu ko jëkka rukkoo ndax sonn na ci taxawaay bi waaye bu rukkoo ay lu rukkoo ba yàgg-yàgg bu mu ko jëkka siggi ndax rukkoo kii daa yàgg waaye lu sujjóot ba yàgg-yàgg it bu mu ko jëkka sujjóot ku ànd ak imaam lu mu yeex-yeex na néeg ba mu àggal su ko defee su dee weeru koor wii ñu nekk ci julli yi julli ci guddi di ko defee ca jàkka ja yàlla mën na koo defal yoolu ku julli guddi gi lépp loolu nag jar na ko waaye am na fu muy waxee it ne daanaka ñoo bokk maanaa am na ñoo xam ne bu ñuy jiite nii may waxee it dañ naan mënuñoo ñàkk mënuñu koo ñàkk julli rek waaye dalay wóni seenum xel nekku ci rap rap rap rap rap mu daal di àgg gaaw mu dem ci yeneen te yem yi dem xamut ba xam dana àggam ren xamut lu mu fay fekk xamut lu mu fay jëlee moo tax la sëñ Ibrahima Mbakke daan wax ne diggante def ak bàyyi koo fa seen du moom foofa la ab julli war a nekk nit ki lu muy def daf koy def wala mu bàyyi ko da koy def ñu xam ne def na ko bu dee lu mu nit ñi mënut a ñàkk xam wala su koy bàyyi mu bàyyi ko yàlla xam ne bàyyi na ko nit ñi xam ne bàyyi na ko waaye am na ci yoo xam ne jéem a nax suñu borom la mu jox la loo lekk jox la wér nga man ko tal ko lekk ci xéewalam yi ba ne góon dëgg-dëgg la mag ñi daan wax am na mag ñoo xam ne ñoo fi dàqoona lekk waaye suñ ko mësaan def ba def dañuy laxasaayu ne ah sëf ko kat su lekkee ba suur war naa mën a sëf dañu koy jullee ba mu rees wala ñu nelaw kon boog war nañoo xoolaat jataay yi rawati nag julli yooyu bokk yi seetlu nañ ne jumaa yu baree bari suñu soo ko tàmbali koor gi day fees dell ñu naan maa ngi dem fasi waaye pas-pas su fekkee da nga koo fas te nekk ko di ko lam baxa ma nga fa ba teyam léet léegi tey kuy rocc rocc ko loolu nag ñi ci war a joxe bind xamees na leen bokk yi am na ñoo xam ne luñ gis diw ñoom dugg ci ñu daal di cay bokk lu metti metti ñooñu nag kon war nañuy génn di dem ci jumaa yi di fekke julli yooyu ak lu mu yàgg-yàgg ndax saa ko defut lu gën pepp lañ wax saa ko defut lu gën pepp jaamu yàlla goo xam ne soo ko defee nit ñi roy la ca da ngay génn ci bis di ko fa defe nañuy dem ci jumaa yi ndax muy fees ndax muy fees dell loolu yan bu leen yàlla yan la doonut ne dañuy yable dem toog déedéet dañoo war naan ay ci leen ñu dem topp leen ma waaye dem leen maa ngi ñëw sax jaaduwut donte dana ñëw nañuy feesal jumaa yi te ñu war a génn di génn ci jumaa yi di déglu alxuraan ji di jariñu waaye bokk na ci muñ ci koor it ni ko yonent bi jàngalee foofu laay jeexale muñ lor yañ lay teg léeg-léeg nga woor ba ngoon yàkkamtee ñibbi amee gàllankoor ci yoon wi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su boobaa bul tontonte fexeel ba jàll rek dem ida asbaxa axadukum yowman saa'iman fala yarfuthu wala yajhal fa in imru'un shaatamahu aw qaatalahu falyaqul inni saa'imun inni saa'im yàkkamti lool njaboot gi gis la nga gis leen xiif lool te yàlla tax mar lool te yàlla tax dog di bëgg a jot ñu gàllankoor saw yoon muñal te xam ne yaa ngi ci njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nanu yàlla dimbali ba ñu àggale weeru koor ak jàmm tam ànd ko wér ak tal ak gëm yàlla gu wóor ak yàlla xeer ñu ci muñ yàlla xeer ñu ci am jom bokk yi nee naa muñ baat bi den ak moom ci wolof mooy jom diw daa am jom mooy danañ ko wax ci ku nangoo liggéey dëgg la waaye nañ ko xool ci ki gën a nangoo teg tànkam ci ndigali suñu borom lu ko ca mën a fekk mu muñ ko nekk nañ nag ci dëkkub koo xam ne kii fanweeri at ak dara la am yoo xam ne ciy loxo la ko nekk muñ ak jom musut ne fu ngeen ma jëme musut ne lu ma leen def juróom-ñaari at yim woore bitim réew kan moo ko doon yët ndogu ku ko doon toggal kan moo ko doon toggal mbëstam kan moo ko doon toggal xadd bu daan naafale kuy ne ci ginnaawam foofu nag bokk yi ku ne war naa dox jëm fa te xool ko lu jéego yi wuute wuute kuy dox te taxawut léegi tey mu àgg fa mu jëm wala mu raw ay moroomam yàlla na yàlla dafa dégg ak topp te musul seytaane ki takkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin